assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag dañu fas yéeni ànd ak yéen ci benn secret bu nga xam ne boo ko jëfandikoo lépp loo sàkku ci doomu aadama bi fekk mu am ko wala mu man ko incha allahu rabbi dina la ko defal maanaam daal du la gàntu ci lenn loo ko loo sàkku ci moom loo xam ne lu mu am la wala lu mu man la mbokk yi comme d'habitude dañuy njëkk a lire rek texte bi ci arab soo ko ñëw ci jéem koy tekki ci wolof mu ne li qadaai alxaajati inda ayi shaxs takunu ala tahara wa qabla adduxuli ala alshaxs taqra'u alayata alsharifa bismi llahi arrahmani arrahim satajiduni insha allahu sabira wala acsi laka amra suratul kahf assura athamina ashar al aya tis'a wa sittun sitta wa sittuna marra thumma tanfuxu fi wajhihi aw fil ittijaahi alladi yajlisu fiih watlub minhu ma shita mbokk yi su fekkee dangay ngay sàkku dara ci nit dangay ngay jóg di dox jëm ci nit am looy sàkku ci moom loo koy ñaan wala loo koy laaj wala daal looy sàkku ci moom lum mën a doon nga bañ mu gantu la jëfandikool secret bi mbokk yi secret bi soo koy jëfandikoo dangay laab njëkk boo yoree toj mu ndaw demal jàpp boo yoree toj mu mag demal sango ji farata sa yaram laab sa yére laab waaw bu ko defee nag laata ngay dugg fi waa ji nekk ki ngay sàkku ci moom mbir mi fi mu nekk moo xam këram wala néegam wala buroom fi mu nekk daal fi nga koy fekk laata nga fay dugg avant nga fay dugg dangay jàng lii may bëgg a wax te danga naan bismillahi rrahmani rrahim daal di teg aaya bi muy satajiduni inchaa allahu soobira wala asuy laka amra ma wax ko par benn baat da ngay wax bismillahi rrahmani inchaa allahu soobira wala asuy laka amra lii nag mi ngi ci suuratul kahf te mooy surat 18 waaw mooy 18e surat aaya 69 waaw muy 69e verset ñaata yoon nga koy jàng yaa ngi koy jàng juróom benn fukki yoon ak juróom benn muy si fois nga koy jàng boo ko jàngee ba noppi danga koy ëf muy suufle ko jëmale ko ci waa ji maanaam direction bi waa ji nekk foofu nga koy jëmale fekk duggagoo de waaw wala nga jëmale ko fi waajee toog danga koy jëmale ci waa ji direction bi mu nekkee bu dul itam direction bi mu nekkee nga jëmale ko fa muy toog incha allah soog a dugg lii day mbokk yi bu soobee yàlla boo ko defee lépp loo sàkku ci waa ji dina la ko nangul bu am na ko wala mu man ko bu ko kenn jëfandikoo nag bu ko kenn di jëfandikoo ci lu araam ci di jël alali jaambur ak yu mel noonu waaye nañ koy jëfandikoo rek ci lu dagan nga koy fayee ku wala nga di ko dara ci lu baax wala daal loo xam ne sa droit la wala loo xam ne lu am njariñ la mbokk yi kon naa taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bi di yaatal xeltu yin di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di aimé ndax fi la njariñ yi di gën yaatoo jaa ngeen jëf wasalaam